suma mbokk bopp bi man mii maa ko wax mu ñëw waaw mu di mbokk mi Alioune Dia waaye na ñu ca bari am na ñu ko miin mais am na ñu ko miinagul te li tax ma wax ko mu ñëw bu subaa dinaa leen ko leeralal incha allah waaw nit ku nekk ca Nations Unies la wala mas di liggéey Nations Unies du temps. tànn il gouvernement yi Afrique nga situation Je essayer di dire de pour nous redresser cette situation ma am ma ma dafa dem Nations Unies sax pour rapport yu mu un déposer mu comme ça, dañu ñëw Sénégal fekk si gàmmu gi waaw moom Alioune bi de Ndiaye Kounda la tudd nekk fii ci yoof ah, sunu liggéey nag li ci ëpp ay lunettes lañuy jaay dañuy jaay tamit ay montre ak ay chargeur ak ay téléphone dañuy def tamit lunettes yi dañuy def tamit sur ordonnance dañuy def photogré dañuy jaay tamit en ak détail ci verre yi ak montre yi. waaw li ci ëpp daal ak accessoire téléphone yi mooy ay chargeur ay écouteur ay batterie téléphone waa yooyu daal la jaay waaw ci boutique Ndiaye bu waaw genre montre yi ñuy jaay daanaka marque yi ñu xam fii Sénégal yi ci ëpp dañ koy jaay waaw marque yi ñuy xam ci montre ay Rolex ay ay Gucci ay Louis Vuitton ay Montblanc ay Gucci daanaka marque yi ñuy xam fii Sénégal ci montre yëpp dañu koy jaay ci façon yëpp rek dañ koy jaay waaw ku ci bëgg rek incha allah boo ñëwee fii ñu dañ taxaw ci sa bëgg-bëgg ba satisfaire la bu soobee yàlla. tamit ñoo ngi gis yi nga xam ne tamit ay pochette yi nga xam ne pochette yu rafet la muy ay pochette yu verre ak ay muy ñu tuddee ko étui ak ay pochette yu ak ay calpe yi nga xam ne ay porte-monnaie la bëggoon na ñoo xam yan genre ñoo fi am ak yan pochette téléphone ñoo fi am exactement ak yan genre étui ñoo fi am. waaw bu dee étui yi moom ci wàllu lunette yi moom façon étui yi yëpp la ñuy jaay. waaw muy lunette catégorie yu ndaw yi ba ci yu mag yi yëpp la ñuy jaay étui yi tamit am na étui yoo xam ne tamit ay marque la waaw comme ni ma la ko waxee ci bu dee ci verre yi am na marque yoo xam ne ay Mont Blanc la comme nu mu amee ci montre yi noonu la amee ci verre yi yooyu tamit ay étui mu am na am na étui yi tamit simple yi yooyu yëpp am nañ ko téléphone yi tamit lu ko commencé ci techno Itel iPhone yëpp dañ koy jaay waaw que bu ci waay bëgg rek boo ñëwee incha allah dinañ ko jaay. waaw ñu yoo xam ne tamit ay matériel électronique yoo xam ne yu jéggi mu nekk ay rajo yi nga xam ne tey macha allah maa ngi ko gis si kaw ak ay chargeur portable ay airport bëggoon nañoo xam nga expliqué ak ay ventilo yi nga xam ne mooy apporte yi la mooy ventilo yu ndaw yi nga xam ne boo nekkee si oto yi bu la tàngaay bëggee rek moom ngay moom ngay jël daal di koy teg si sa kanam bëggoon nañ tamit nga si wàllum waaw yooyu yëpp xam nga dañoo toll si jamono boo xam ne jamono technologie la ñu toll. waaw ci wàllu électronique moom yàlla def na ñun génération bi tombé nañ ci macha allah wax dëgg yàlla dara jafeetul waaw yooyu yëpp am na fi mooy ci wàllum rajo te xam nga rajo jaw ay jamono ci ginnaaw rek daanaka rajo FM rek nga ci daal mën a jàpp waaw léegi rajo nag boo ko yoree mu nekk lu ndaw ci yow mën nga cee def lépp waaw dañ mën na def carte mémoire am na yoo xam ne day am bluetooth euh, mën na jàpp tamit rajo am même temps. waaw comme ni nga ko waxee ci wàllum ventilo yi tamit ventilo yi nga xam ne dañ koy foo jëm mën nga ko yëbbaale mën nga ko teg sa oto mën nga ko teg sa taabul bureau fu la neex daal ventilo yoo xam ne du la déranger dara bu la neexee sax boo wàccee nga jël lembam rafet dugal sa saag yëbbaale waa yooyu yëpp tamit am na macha allah ak yeneen xeetu accessoire yi waaw yooyu yëpp daal am na fi waaw. waaw ma dégg ne Ndiaye Kounda ki nga xam ne sa verre daf tilim wala ki nga xam ne say bëtu yi nga xam ne mooy lanterne di dafa xoosu dafa yàqu tamit da koy changé. waaw yooyu yëpp dañ koy def dañuy monter fii ay photogré képp koo xam ne tamit am nga sa cadre bëgg koo def ay photogré boo ko indee fii incha allah daañ la ko monter képp koo xam ne rek amoon nga ay photogré nga takk ko mu yàgg ci yow lool nga dem ba bët bi xoosu boo ko indee incha allah daañ la mën a changer bët bi mu beesaat tàq yooyu yëpp dañ koy def képp koo xam ne tamit ñoppi nga. nga dem hôpital def consultation ba ñu bindal la ordonnance soo ñëwee indil ñu ordonnance bi incha allah daañuy taxaw si say biir ba euh, commandé la sa ordonnance defal la ko comme yow ni nga ko bëggee comme li ci médecin bi bind rek incha allah daañu la ci defal loolu bu soobee yàlla. dafa mel ni Ndiaye Kounda moo mun moo ëpp doole parce que maa ngi ci dégg ay bracelet nga xam ne bracelet yi nga xam ne tey moom la xale góor tak ay xale jigéen macha allah maa xam bracelet yi yan qualité la exemple ku ko soxla nu waaw bracelet yi de moom euh, daanaka mën naa ne lu xew la ci jamono la rek waaw ñun nag duñ jaay bracelet yi nga xam ne euh, jogaan bi la bracelet yi surtout yu góor yi original bi la ñuy jaay waaw bu dee jigéen yi nag daañ ci am original daañ ci am yeneen catégorie yooyu tamit lu ci waay soxla rek incha allah boo ñëwee daañ la présenté yi nga xam ne moo fi nekk nga xool li nga xam ne yow moom moo tolloog sa poos incha allah nga jënd ko waaw mel ni tamit Ndiaye Kounda yemul foofu parce que maa ngi fi gis ay sac yi nga xam ne ouverture des classes yi ngi ñëw maa ngi fi ay machines yi nga xam ne ay machines électroniques la pour nga xam ne élèves yi jàng tamit maa ngi fi gis li nga xam ne mooy ay power bank maa ngi koy gis ak ay red light bëggoon ñoo xam tamit Ndiaye Kounda est que tamit yooyu da koy distribuer waaw yooyu yëpp dañu koy jaay fii ku ne xam na ne ouverture école bi daanaka soreetul euh, sac moom ñun xaaruñ ci sax ouverture école waaw jamono bu nekk dañ koy jaay xëy na ouverture école bi nag day sa fournisseur maanaam ñi ngi koy jaay ñi koy soxla dañuy gën a bari waaw da ngay gën a yokk sa loxo ci jamono euh, ouverture yi la nga daan am ci saak da nga koy yokk waaye ñun ci année bi yëpp la ñuy jaay saak waaw comme ni nga ko waxee ci wàllu power bank yi tamit am nañ ko mooy power bank yi nga xam ne dañ koy importer fu la neex booy voyager fu la neex daal da ngay charger ba mu fees rek dugal ci sa saak. saa yu sa téléphone de chargé mun nga jël nga chargé waaw am nañ ci yoo xam ne original la mun na chargé téléphone ay deux fois wala trois fois def ko cent pour cent comme ni nga ko waxee waaw yooyu daal yëpp am na fi macha allah airpod yi tamit am nañ fi yoo xam ne am na qualité yoo xam ne qualité yu baax yi la am na yoo xam ne tamit qualité yu xaw a yemamaay la waaw yooyu tamit ci waay bëgg rek boo ñëwee rek incha allah daañu la woon ñu fi nekk. daa mel ne tamit Ndiaye Kounda day wane fii kër diine la kër l'islam parce que maa ngi ay courses yi nga xam ne ay courses électronique la gars yi naan ko chapelet électronique te maa yi nga xam ne mooy yi moom mooy nouveau modèle yi moo nekk nii moom boo xool chapelet yi euh, euh, ni ñu ko waxee rek courses électroniques yi am na fi am na fi yu ndaw yi daanaka modèles yi yu ci dafa bari waaw am na ci yoo xam ne yu ndaw la am na yu digg dëwmu ba ci yi nga xam ne ñoo gën a kawe yooyu yëpp am na fi waaw Ndiaye Kounda comme niñ koy waxee li tax sax turu Ndiaye Kounda bi ñun fi ñu dëkk village bi ñu dëkk moo tudd Ndiaye Kounda loolu moo waral boutique bi ñu tuddee ko Ndiaye Kounda te ku miin Saalum xam naa ko xanaa ku ko xamul waaye ku xam Saalum xam dëkk bu ñuy wax Ndiaye Kounda dëkku diine la waaw dëkku Thierno Aliou Deme la foofu dëkku diine la. looloo tax tur boobu ñu indi ko tuddee ko tuddee ko boutique bi parce que bëgg nañ ñun tamit fu ñu mënta nekk muy ci Sénégal ak muy ci àdduna bi yëpp ñuy dund comme lañ daan dund sunu village loolu moo tax ñu tuddee boutique bi Ndiayekounda képp ku fi dugg rek boo xamee Ndiayekounda bu ñu la nee boutique bi Ndiayekounda la tudd rek sa tur directement dina dem ci turu Ndiayekounda Ndiaye beneen bu ñuy terminé tey dañoo laal li nga xam ne moom mooy presse bi te ku ne presse nga xam ne tey micro yi nga xam ne micro buntu fi moom la ñuy câble di ko def suñu direct yi nga xam ne moom la conférence presse yi wala ay euh, meeting bu amee dañ la gis tamit nga yor ko fii ñu bëggoon xam tamit est ce que yu iPhone kese nga fi yor wala am na yoo xam ne yu Android la. waaw micro yi tamit am nañ ci ay façon yu iPhone day am tamit yu Android waaw yooyu tamit ñaareel sunu bagage yi nga dajal lépp daf dul daf dul yomb waaye lépp loo xam amuñu ko. bu client bi ñëwee demande nañu ko bu fekkee du nekkul lu urgent ñun daañ ko mën a gëstu ci marché bi ba toppatoo ko ko indil ko ko ci boutique bi waaw. léegi njaay ñoo bëgg nga xam da ngay jaay détail ak en gros képp koo xam ne sori na fi nga xam ne mooy bëgg commandé nan lay def. waaw ku sori Yoff euh, bëgg commandé comme ni ma la ko waxee ci njëlbeen rek montre yi dañ koy jaay en dañ koy jaay détail verre yi koy jaay en gros koy jaay détail daanaka bagage yi ci ëpp dañ koy jaay en dañ koy jaay détail waaye nag yàlla dafa dogal. ci montre ak verre ci loolu la ñu gën a fort waaw bu ko defee képp koo xam ne bëgg nga ci boo jëlee suñuy contact rek incha allah boo ñu contacter rek fépp foo mënta rek boo mënul ñëw yoof sax ñun daañ la mën a euh, sélectionner li nga bëgg ba envoyé la ko mu fekk si la fi nga nekk incha allah. waaw léegi képp ki la bëgg a contact yéen numéro lay wootee. waaw bu dee fii numéro bi nga xam ne moo nekk ci boutique bi moom boo wootee forcement di nga jot ki nekk ci boutique bi 33 la 820 11 39. bu dee ci téléphone portable yi man sama numéro man Abdoulaye Diop 77 571 70 39. am na tamit ñu fi nekkal. waaw gars yi ñoo ko déggandoo tamit ñoo ko gisandoo ñoo ngi nekk fi nga xam ne moom mooy Yoff di seet si ki nga xam ne mooy bitigu muy Ndiaye Kounda di jaay lépp li nga xam ne tey moom mooy matériel wala tamit produit yi nga xam ne muy matériel électronique day jaay verre ay verre yi nga xam ne sous ordonnance ay photogré ay verre de soleil ak ay lunette blanche da koy jaay tamit day jaay lépp li nga xam ne tamit matériel électronique la mu nekk wàllum téléphone mu nekk wàllum habillage wàllum photo wàllum tamit ay ay airport power lépp lay jaay di jaay tamit lépp li nga xam ne mooy ceinture daal di calpe di jaay lépp li nga xam ne tamit lépp li nga xam ne matériel ëllëg na boo ñëwee Ndiaye Kounda rek danga ko ci am gars yi dinañ jox dig daje ak keneen ak beneen boutique incha allah si la RTV Dakar merci.